asalaamaaleykum juma mubarak eh, di leen eh, ñaanal yéen ñëpp eh, juma mubarak ehm, li ma bëggoon a wax mooy tuuti ci wax ji nga xam ne moo nekk foofu ci affaire yi kii nga xam ne moo bëgg nekk di nekk secretary ki nga xam ne moom mooy suñ foreign minister ak ñi génn di wax ne moo rek ko jox liggéey bi parce que dafa liggéeyoon ak Yaya Jammeh te dafa noppi woon waxul woon dara li doon xew lépp ci kanamam la xew te tamit am na yenn doomi Gambien yoo xam ne sonaloon na leen ba taxoon na sax bu li mu bëggoon su loolu amoon ni ko di dinañ doon am ay problème loolu yëpp wax nañ ko waaye li ma bëgg a wax rek du bari man wax bii dama ne woon sax pour di ci bamtuwaat sax di ko waxaat sax dafay jox wax bii di ko àggal foo xam ne sax dina sori Ehm, dama ne woon jarul sax di ci wax waaye li mu bëggoon a wax rek mooy xeex bi sa dëkka am démocratie taxut ne yaa moom dëkk bi wala yaa wax nit ñi liñ war a def wala tamit yow da nga war a taxaw rek nekk benn police boo xam ne eh, lu la neex loolu mooy dox ci dëkk bi lu la neexul lu nekk da ngay jóg nga daw eh, di ci wax dëkk bi xeex pour sa dëkk dafa yàgg depuis Amérique ba yeneen dikka dikka dikka ñoo xam ne ñëpp dañ xeexoon pour seen dikka fu mu war a àgg ñu àgg fa te xeex boobu képp a ku koy def musuloo koo def yow kenn ngir ay yeneen nit ñoo ci bokk ñëpp bokk xeex bi xeex ba jàmm dellu si boo demee nag ba xeexal sa dëkk ba xeex bi jeex bu fekkee bokk nga ci nguur gi mooy nga liggéey nga jàppale sa dëkk bu dee bokkuloo ci nguur gi nga dem lijjant ji leneen loo xam ne moom nga mun a def ci sa réew nga def ko nga dal di toppatoo sa soxla waaye xeex nag kenn mënu cee dëkk xëj na dëgg la am na ñoo xam ne ñoom xeex rek lañ bugga euh, buñ ko deful sa dañuy wéet waaye man dama ne xeex bu jeexee jeex na ngir xeex ba dar sax bu dee jeex na kon amul benn xeex boo xam ne dafa war a continuer du jeex li may wax moo nañ leen bàyyi wante xel ñu bàyyi wante parce que suñ fi buggee toog tey ñun gàmbi ni ñuy wax ne képp koo xam ne liggéeyoon na ci nguur Yaaya Jammeh warta am liggéey ci bitim réew wala tam ci biir réewam sax waruñ koo jël boole ko ci ñuy def ñooñu gambien lañ Yaya Jammeh ba mu fa nekkee ci dëkk boobu ñun miy wax ci biti lañ doon waxee ñaata nit ñoo nekkoon ci biir réew mi di fa wax bariwul ñi doon wax ñëpp ñun mii ñun ñëpp ci biti lañ doon waxee kon nañ leen bàyyi wante ñu ennee wante jàmm nit ndax muslim nga nag christian nga lu ñu jàngal mooy nit ku nekk da nga war a ennee sa moroom jàmm ci lépp loo xam ne dugg na ci boo ko munte ñaanal bàyyi ko mu dem lu mu ci am tamit mu nekkee noonu waaye mun loo toog nit toog bugg a dara pour jot ko yow nga taxaw ne waru koo am man de loolu ku ko def nit ku ñeme nga te sa xol dëgër na yan bu ma yàlla boole si façon yi nit yooyu noonu ci àddina li ma wax daal mooy nañ leen bàyyi wante xeexal sa réew taxut ne yaa moom réew mi taxut ne yow da nga war a jóg lu ndaw lu nekk nga jóg boo xeexee ba xeex bi jeex demal nga dem doxi sa soxla leneen li nga xam ne mu ngi ci dëkk bi yeneen nit dinañ ko lijjanti parce que lenn li gën a important indi nañ ko Gambia mooy te loolu du man maa ko indi du ñuy wax ñoo ko indi du ñuy collectif la dëkk bi yépp ñoo ci jóg ñu liggéey ko ñu dal di ko indi mooy ñi nga xam ne vote nañ mooy ñi nga xam ne ñu ngi woon ci biti waaye nag dafa am ñeneen yoo xam ne buñ yéexee xeex ñu gis ñoom lañuy jóg pare commencé seen xeex yi boppa parce que xëj na ñoom teelu ñoo bokk ci xeex bi wala tamit xëj na foog nañ ne am na lu luñ ci bugg a ñoom i tamit foog ñu jóg bugg a wane seen boppa waaye dama foog ne xeex jeex dafa war a jeex man de lii laa bëggoon laa amoon pour wax li may wax daal mooy nit lu gën a am solo nit da ngay jàppale sa morom ndax jullit lañ ndax chrétien lañ ñun lii lañ xam nañ leen di góor góorlu ci loolu moo gën nit bu ko eh, jot dara nga nekk di ko xeex di koy yàqal yow doo yàlla nañ leen gëm yàlla lépp loo xam ne moo xew ci taami yaaya jam wala lépp loo xam ne moo xew yàlla mu ñu tiim xam na lépp yàlla xam na lépp liñ def ñun def nañ ko ki ñu xeexal xeex nañ ko te moom moo tax li fa xewoon yëpp mu mënoon a xew parce que bu fa nekkutoon lu bari mu doon xew li ñuy jiiñ ne ñii waxuñu woon kii waxuñu woon ni kon du xew waaye comme léegi am nañ démocratie boo xam ne ku nekk la neex wax ku nekk la neex def dama fa ne dañ war a sant yàlla ñu bàyyi wante ñu bàyyi wante xel te ñu bàyyi wante ay hope na message bii kon gars yi dinañ ko déglu ak xel te bañ koo déglu xol loolu rek laa amoon pour wax